Bon, ça va ah. ñaareel xaritu jëkkër waay. baro. ñaareel ci la nii. ça va noo def. tey gisuma la. maa ngi nii de. yaa ngi si waañ bi. ñaareel. ñaareel daa am lu ma la bëgg a wax. dama bëgg final. lan ngay joué bay final ban football. tey tey du football. suba la ñuy um. mu bëgg finalu rek. tëj saison bi. <laughs> sama waa ji Pape Diouf daa génnee ay son yu bees tàq yu neex mu bëgg tëj lépp ci benn cinq secondes rek pàkkar na ko si buntu kër gi. ay boro. <laughs> boro léegi mag nga nag bàyyil fecc. fecc day dundal xol day tax nga dund lu yàgg <laughs> day dindi essence. xam nga man aw ma problème. Mm. waaye demal nga wax ak sama mag aw buuru këram. Mm. moom boo waxee rek baax na. ah bu këram waaw ci wàllu yaa jàmm. sant yàlla. xam nga ni ñëw laay kaaba ga bi coon sa koy yow rek yaa ko moom yow kese kat. Boro loo bëgg yaay neexal rek lu xew. ah, ah li ma bëgg méttiwul eh, dama bëgg finaalu rek suba la ñuy koor ma bëgg finaalu li ma doon wax ñaareel. mais Boro mënoo bàyyi nga xam ne alkaat day bàyyi dóor kañ ngay bàyyi. Ah, offeur bi laa bëgg a jël rek yóbbu ko si ci sama waa ji Pape Diouf yi mu génnee yëpp ma taxañ ko ci benn euh, une minute. yow li nga fecc yëpp doyu la imagine ñaata weer nga koy fecc ba weeru koor gi ñëw nga mun a teg jaaj ji nag concentré wu baro julli jàpp jaamu yàlla dégg ustaas yi di waaraate mais yow ambiance rek. ñi war nag tey am na ñu woor xamoo loolu. xanaa waa Màkka la. Màkka woor nañ tey kay. ban heure moo jot Màkka. instant dog jot na. waaw ñoom nañ ndogu te bàyyi ñu ñun ñun wóorugu ñoom màkk lañ ne ñun ñu ngi Sénégal bàyyi ñu bokkul ku nekk ak sa wóoru bopp ñun ñun suba la ñuy wóor. baax na mais leen laa lay wax. musique bi bu mu génn buntu kër gi. Ah. dama am ay dëkkandoo ku ma ku ma yàq. kon ilaha illallah may woowee maa séeri booy fii laa lay woo ta tëtëtëtëtët pacca wuyaay sama buumu xol nii laa lay woo ta tëtëtëtëtët pacca laa ilaha illallah ti lay pap jubu mën a way ah li ah! sax du info ma génnoon naa fa neex. Ah. ay na ni. yow xalaat waa kër yëngu nañu ñëw nga. non dama leen surprise. la ilaha illallah. waaw mais yaa ngi am doole ba naa yow. Ah, waaw lekk lu baax ah. kër gee neex. waaw waaw kër gee neex aaw ak ñaareel toppatoo ma. mais ay jël nañ yéen waa kii gi. papa papa. papa. yéen seen papa ñëw na yéen. <laughs> yéen seen bàyyi oh mes enfants oh mes enfants oh lool lool lool lool mais da ngeen a màgg yéen tu as grandi toi hein doo war sa bi hein et toi allez bisous oh wax leen leen je waxoo koo def benn yoon xam nga ne mënoon nga bàyyi ñu jël si la yow tamit mais sama doom yi dañoo màgg ah. bah aw buru këram. je suis xam nga surprise baax na tuuti. yenn saa yi nga koy defal nit ñi day neex du dëgg. mais lii dafa neex. dafa baax mënoon nga bàyyi ma jël si la du mun na moon. Euh, tu sais quoi. tu es toujours belle. merci. yaa ngi mel ni ku am 18 ans. waxal waay. oui toujours beau. je sais. <laughs> mais namoon naa la quand même. ma princesse. je suis là. je t'aime. Eh, eh. je t'aime aussi. je la. bébé je vous aime tous les deux. d'accord. tu m'as manqué tu sais. ta douce voix m'a manqué aussi. ku aaya tey. yow man xam nga ne su ma ayewul sax boo nee cëpp ci man ngay fanaan. mais yéen ñaar ñëpp a aaye tey cinquante cinquante laay def maa ngi doog a ñëw mais man maa mënul maye yéen ñaar ñëpp laa nam ma. <laughs> waaye yow. Ah, wàccal nag chauffeur yeeg dawalkat baa ngi soog a ñëw. sama jarbaat bi ma la Balla. Balla Balla grande. mais Balla yow téléphone bi da ngaa mel ni booy. wax nga dëgg. alors que punkal nga. punkal nga. <laughs> dese naa ay ñelaju rek. comment tu vas nakay tey. alhamdulilah grande lii laa yàgg a rêvé. lan ci bi ma tëddee laa jël kii. bi ci guddi rek lii laa gént. Uh-huh. maanaam di dem réew tugal ak a ñëw. diri samay valise bitim réew jommul kenn. boo fa demee rek na nga am jom. ci ngay am ful la ñibbisi. du dëgg. man ah, et si tu es sage. su may dem uh-huh. dama la yóbbaale. non du ma ko laal waaye grande. ah doo ko laal. Ah. bëggoo faaw ma dem. da nga yóbbu réewum tugal. bu fekkente ne tu es bu ma demee mbaa xam nga ne màggatum tubaab laay teelu pour. loolu baal ma dencal la ko sax. pour lan daal di koy tax ñëw Sénégal toog wéeru. teel a am këyit. Sénégal dafa metti dafoo de. Sénégal porte duro grande. ah mooy lan loolu kii la ni yow lan la kii mais il est il est amusant. bëri ah nga koy yóbbu. Italie laa lay yóbbu. ñaari fan rek ñu dem. Ah. dimbali ma rek moom damay dem moom. <laughs> nga ëppal mënoo régler nga dal. Eh, nga teey la waaw. damaa mel ni seet bu bees damay seetu. maa ngi doog a ñëw je fais un mois. <laughs> ah et puis li nga sori nu mu bii euh, mooy Jokin. Jokin Jokin. <laughs> mooy Jokin. yow demal rek. tey grande. Ah, laay grande. day day balaa ngaa ni ngay umee moom salaw ñaari jongo ma man faa ma dem Europe. Europe moom. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. góor gi. oui. ça va bien. non mën naa la papa. man de surprise de laa leen defal rek ah. oui c'est bien. mais tu sais que yow Jokal rew nga ah. te nga incorrect et puis yow danga nga nay yow da nga soxor da bon yow naka nga jógee France ñëw sa kër di waajal weeru koor xam ne mooy suñu woor ñu dul nga war a yónnee ceeb tëwli jàpp ah dara du manqué kër gi di jolli di saxaar ñu xam ne ñun ci mois de ramadan la ñu nekk nga doon naa dag ñuy surprise. waaw xanaa da nga da nga mer. waaw. non je le dis par rapport à moi mere woo ma man da nga mere feneen wala da nga mere leneen. non si. non non non man mënuma concevoir. sa doom. Ah, ah. nekk France. Ah, deux ans ñëwuma Sénégal. ma ñëw nga war a saafoonteeg man dalal mag jàmm maa ngi doog yegg si papa. su ma neexee ñëw tàggoo su ma neexee su ma ñëwee du ma tàggoo su ma neexee def surprise sama ay jabar nga ci medd mu yuux dafa am feneen fa mere wala lan la. d'accord bu la neexee tàggoo bu la neexee doo tàggoo su ma neexee wax ak yow nu ma neexee eh man maa la jur. te bëgguma wax ngay waxal. man maa la gën a réew ah. may sa baay ba may réew juddu woo ba may dem France juddu woo ba may dem France visa amul ci bato moo am yaa ngi dëgg soo xamul nga laaj ma pare amul fu ay Tour Eiffel xam nga ay temps wu ñoom président bu njëkk ba ay ñoom De Gaulle ñoo ñoo doonoon samay xarit man dama yàgg doon noonu bu ñu yow nga daan am ay surprise merde ak surprise jullit nga yaatul yoral xol bu rafet de dimbalaate loolu laa gën a wóor kën ka taxaw fi naan ma ay ay surprise merde. voilà man je pense que da nga commencé perdre la tête en fait. waaw loolu lañ durul ko affaire bi d' accord loola naqar yi mhm. mooy li nga mënoon démb ak barki démb. Mhm. mënatoo ko tey. loolu c' est ma faute. yàlla la man ëllëg mën naa ci toll man tamit. Mhm. du dëgg mais ni nga comporté woon nii ak sa doom du noonu. kër gi nag c'est chez dama ñëw woor si ci jàmm ñibbiwaat ci salaam. waaw. waaye dama faale sa kër yow ba ngay judd sama kër fa nga juddoo soo bëggee ma génn léegi. dootuma xale. am naa ñaari jabar am naa ñaari doom maay kilifa gi ginnaaw baa ngi fi. te lu ma neex moo fi am. ak sa ñaari jabar yu bon yi sa jeeg yu salte yi soxor iñaan mënuñoo togg incorrect nañu mais ça c'est du jamais vu. di da ngay jaay rawande naan ne war man maay sa maa la jur te très impoli. je suis impoli. bu te très impoli. yaay ah, kon man je suis impoli. Eh, kon man je suis impoli. yaay sama papa kon nous sommes <laughs> <laughs>